wa Euh, mu ngi noonu Cheikh Moustapha Mbacké ibnu Cheikh Sidel Mokhtar tey gis ngeen tey toog toogaayu baayam waaye tey toog toogaayu guy mbind ndax ku ne xam na ni tey ki jagleel bés bi euh, moo nekkoon xalu général des Mourides ci lu mat juróom-ñaari at tey doomam tey nekk nii ñu jagleel ko bés bi ndokkale see sëriñ bi si lii nga xamante ne mooy liggéey bu réy bi fi am ma waxoon ne mooy sunu charité si sëriñ Touba sëriñ Touba bu demee géej demal ñëpp a géej bu ñëwee nañ ko wax jëf mais lii ñu wóor mooy lii nga xamante ne moo fi xew booba ak tey ñu gis jàkka ji jumaa ji fi mu ne nii nun senegal ku am bàkkaar ak ku amul bàkkaar àjjana rek. bis bi tam bis bu rëy la ci njabootu sëriñ Bara ndax li tax mu rëy fi ñoom mooy naal wu toll nii ku am fitu naal ko ci loo xam ne juróom-ñaari at képp la toll nga liggéey ko ba mu yegg si fii tey bu sax njaboot buñ ko dee inauguré ñu jël ci bis duppe ko sax njaboot duppe la ko yow sax njaboot dikk teew. kon ñoom war nañoo sant yàlla waaye ñoom it war nañu laa sant ndax kenn ku nekkat bëgg nga sa baay def lu mel nii ci àdduna kenn ku ne bëgg nga sa maam def lu mel nii ci àdduna te damaa wax ni jumaa ji Cheikh Sidi Moukhtar lim ci def kenn defu ko ci ca ba mu tàmbali ba fii mu yegg si nii ndax ñëpp ñëpp ñi fi ne ñëpp te nekkandeegun fi fekk nañ liñ ci li ci def xam nañ xam nañu itam limu ci def kon nag Euh, ñun dañ duñu man luddul sante bo boo doon définir personnage euh, euh, Cheikh sidou Mokhtar da ngay wax ni Cheikh sidou Mokhtar universel la da ngay wax ni Cheikh sidou Mokhtar Cheikh sidou Mokhtar personne incontestable ngay wax universel incontestable bo doon définir Cheikh Cheikh Sidi Mokhtar tey moom ngay wax ndax li tax ma wax la lolu moy am na ñoo xam ne nekkuñu ay jullit. ci jëneen diine la ñu nekk te gannaaw Cheikh Sidi Moukhtar jël doom tudde ko buñ ko ko tudde woon te ba mu fay ne nga wax ni nekk gee am na ñu nekkul ci diine ji jël ay doom tudde ko ko ndax jikkoom ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toujours ma wax ko li mu tedd yëpp yàlla tëgg ko ci wala dëkk fii wala dëkk fee yàlla daf ko tagg ci jikko ko wa innaka la ala xuluqin azim ci jikko la ko suñu borom tagg tëgg ko ci juddu tëgg ko ci dëkk Màkka tëgg ko ci Medine tëgg ko ci leen jikko joojee nag da ci am toq goo xam ne dem na ci Serigne Touba ndax Serigne Touba yonente bi bi ñoo nuru lépp waaye jikko joojee itam da ci am loo xam ne jóge na ci Serigne Touba ñëw ci sëñ Baara ñëw ci euh, ci ci ci ci Cheikh ñëw nañ fi pour raison yu bari d'abord taalibe murid lañ di jéem a doon murid saadeex waaye ñëw fi itam tey jii bisu suñu sëriñ suñu papa suñu wayjur suñu wasila sëriñ Touba Cheikh Sidi Moukhtar Mbacke ndax koy wax Masaalikul defe naa ni da sëñ Sidi Moukhtar moo nga ci digg ba. ndax jumaa juñ naan ñaar fukki million nangam ku ci def fukk ak juróom-ñett yu tegal defe naa ne yaa ko tabax maison partie li nga wax lu ñu dañu ko yombaloon ba am na loolu sax bàyyi woon nañ ko ngir ma mm, jumaa ji lépp tegu ci aw yoon donc ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax tey bisu sëñ Sidi Mokhtar la ñëpp xam nañ euh, taxawaay bi mu taxaw ci jumaa ji ndax euh, loo gis rek day am ku ko tàmbale day am ñu ci def ak ku koy mot li euh, tey bisu sëñ Sidi Mokhtar la euh, suba uniga euh, ubbi ubbi jumaa la ubbi gi man li ma ci li misaal bi ma ciy jox rek mooy sëñ Touba li mu wax ne illa qaadallahu ma lam yàkku ni wala yàkku ni abadan li mum ko ni yàlla defal na ma loo xam ne nii mosu ko defal mbindeef te du ko mas a defal kenn lii rek joxe na exemple bi ndax lii ci Sénégal la am

ku ko xam-xam ne tey ni muy taxawalee jaamu yàlla moo lay wan doomu Cheikh Abdoul Khadr la ndax gis ngeen dafa yegg si fekk euh, nit ñi di julli euh, ñamu ñu maanal sax daanaka bëggoon nañu mu jiitu waaye ci li ñu ko xamee ak li ñu ko yor nampatal ko ci gis ngeen dafa mujj lal sijaadaam euh, daal di taxawal waxtu suñu borom mi. آمين آمين آمين jërëjëf Mbacke yàgg fi lool ci Mbacke Vaya bis bi day loo xam ne eh, ñaari guddi yi fi Sëriñ Tuubaa fanaanan fanam yi wecci na lu ko wecci na ko lu metti woon ne murid booba rek seet na seen xol jamono yi nu toll waa Ndakaaru nag war nañoo sant yàlla bu baax a baax ndax cant gi mooy lii bokk na ci lii nagamal Iblis ndax li tax mu wax loolu mooy tu tànk yi nga xam ne yàlla dogal muy seen sens ñu dool toll ci ay juróomi ak jëm jëm jëm jëm suuf yàlla may ne sens man fee jàngi seen diine man fee jàngi ak bi man fee yaroo te loolu mel na ni tumuranke woon na ci dëkk bi kon mbir la moo xam ne dana naka man seytaane lool dafa mel ni itam di Sëriñ Tuubaa wax ne ilaa yaxaat la maa lam yakun wala yakun abadan li mumkin ni foo ko xool rek fekk ko fa ndax mel na ne lu mel nii day jort naa ne faat na Ndakaaru ndax barab bu mel nii duutu yomb liggéey bu mel ni duut fi yomb kon la sëñ Tuubaa waxoon ne daa daal di feeñaat rek jagle gi ko yàlla jagleel te ji mësu koo jagleel kenn te duñ ko jagleel kenn loolu day daal dikkaat boo ko xoolee ku dem Madina Munawara it dem Makkatul karam xam ni bu ne maay Xaadimu Rasuul nga xool am dem tuuba dem Njaaréem ñëw fii dana la wër ni kii lam mu wax loolaay la nekk